yaa mukrima dayfi jaaran kaana aw saara yaa maahiyan an qadiimin qablu aw saara naadaaka fil barri bahdal bahri qaadimukum wal yawma qutalahu billahi maqtaara akramtahu bi qiraa'atin wa takrimatin فعاس عن جملة أسواه أستارا قليته عن سوار الوان قبل كما عليته بمنى دارين مبرارا بك انتهى سيره لله مرتديا عنكم وقد هاس عنوارا وأسرارا عملت بسقاي البائس أبدا قلا وعيب لكم لا يدخل النار أمنته بسقاي فائسا أبدا قلا وعيبا لكم لا يدخل النار نال المنعم سبا ما بغوا قدر من مستر منه عند البهر دينارا من مستر لعك عيس تحت أبدا كما له قادما يهواه أوطارا ولا الحين بيحسن منه منصرفا وكل ما فيه دنور ضب أو تارا لخيره ينتهي إبليس في أبد كفاه ربك تأمنا وأقدارا ak ñi nga xam si noonu la Serigne Touba àndaloon mu mel ne waxtaan woowu ki ñu koy defal wala ñi ñu koy defal bokk na ca Serigne Baye Dame Ndiaye bu xidmatul muridina bu kër sëñ taala moom moo ñu war a defal waxtaan wi di koo xam si tim ab sëriñ daara la buñ ko doon xamle ci lu gàtt di koo xam si moom it kirtiir la fay liggéeya tey jamaaxatul xayri tànnoon ko ngir mu ñëw bokk seeg ñun liggéey bii di ko ñaan suñu borom mu fay ñu yiw waaye boole ñu ko ñun ñëpp di ko sant bu baax di ko gërëm ci jéego yi nga xam si ne def na ko ba ñëw ba fii ak ñi nga xam si ñoom la ànd ak ñëpp raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi sayidina muhammadin rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam nabiyan wa rasul rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci sangub sang yi sayidna muhammad sallallahu taala wa sallam ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci xalaat bu rafet bii ngeen xam ne yéen a ngi ko amal di boole ay mbooloo yu fasante ko ci ay bërëb ñuy taxawal liggéey bu màgg bi nga xam si ne benn liggéey féetewu ko kaw tey sant ak gërëm jàmbaar ji nga xam si ne mooy sëriñ Mbàkke mu Ñaay di suñ wóllëre bu baax a baax di kenn si ñun ñuy ñaan yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala mu guddal aw fanam wéral ay cëram ba li nga xam ne naa na ko ci lii fi ay maamam ak i bàyyam bàyyi woon sun borom defal ko ci loo xam ne kawe na njortum di nuyoo ko sant tamit waa daairatu jamaatul xayri ci boole gi nga xam si ne boole nañu ko ci seen bopp jël ñu liggéey bu rëy bi yiwu rëy wi ñu yéene ko yéene ñu ko ba boole ñu ci ñu ngi leen ci sant baax di leen gërëm di jiital ci cant gee gërëm gi kii nga xam si moo nekk ci bopp bi ba ca nekk su ñëpp rek ñu leen sant di leen gërëm kon ñu bàyyi Cheikh Mbacke mu nuyoo ah. kon mu mel ne tey mbokki jullit yi xam na ne saa suñ jamono su fu mu toll rek dafay faral di am lu ñu actualité kenn ku ne war a xam na ne saa su àdduna di dox bañ àgg ci jamono jii xel yu baree bari dana dellu ci menn mbir te mbir moomu di mbir mu màgg a màgg di mbir moo xam ne si ne sun borom subhanahu wa taala moo ko farataal si julli gi te ñu koy wax chahru ramadanul mubaraka muy weeru koor kenn ku ne xam na ne li dox suñ digganteeg moom ay waxtu yu néew la mu mel ne saa suñ ko jubee képp koo xam ne si ne ab jullit la war naa gësuwaat bu baax a baax li nga xam si ne moo aju ci weer yi ba mu jàll ndax loolu farata la ci jullit bu nekk mu xam lu ko ndax farata dafa séddale ko ci ñaari xaaj am xaaj boo xam si ne moom lañuy ñuy tudde fardul kifaaya am faat boo xam ne moom la ñuy tudde fardul ayni fardul kifaaya nag mooy li nga xam si ne su ko ñenn mbokki jullit yi taxawalee mu wàcc ña ca des fardul nii nag mooy li nga xam si ne jëmm ju nekk moo ko mën a defal moroomam moo ko mën a defal boppam kenn mënu koo taxawale te loolu da caa bokk koor mii buñ naan nangam farata la maam masala buñ naan euh, euh, koor war na ñoo xam ay farataam kon du jëb ne jamono ju ne rek nga war war a xam faratay koor waaye saa suñ jubee weer wi nag moom obligation la ci jamono jooju nag nga xam la nga xam sii ne mooy moom la weer wi laaj ndax boobaa day nekk farata ci yow doo ko sañ war a jàllee nag ba wéeru dellusi nag comme ko farataaguñ ci yow jamono jooju moom ah bu la neexee waaye jamono ji nga xam ne agsi nañ ci moment bi nga xam si ci lañ ko war a jox moom booba xam lu li nga xam si ne mooy faratay koor day nekk farata ah, loolu nag ñu ngi ko sukkandiku ci ñu ngi ko sukkandiku ci téere bi yàlla bi subhanahu wa taala ak xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xam si ne borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci muy ijmaa euh, euh, bu ñu ko bëggee na indi dalil bi nga xam si ne mu ñëw ci alquranul karim sun borom boo demee ci suratul baqara da nga fa dégg mu ne yaa ayuha allazina amanu kutiba alaykum asiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun kon loolu di nas boo xam ne si dafa nekk ci alquran muy loo xam ne si jullit bu ne war na ko bàyyi xel ñaareel ba tamit boo demee ci hadis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buniyal islaam ala xamsa mu koy lim dem na ci ba sawm ramadan kon nga xam si ne moom ak farataam day loo xam si ne alquran saxal na ko te nekk loo xam tamit sunna saxal na ko koor buñ ko bëggoon a xamle ci gàttal ci sariya ngir ñu bañ a guddal di ko taxarif ci loxo sariya ñu taxarifal leen ko ci sariya dañ naan fa huwa al imsaaku an zaxwatay banni wal farji min tuluuci saadixil saadixil fajr ila xurubi sams bi niyatin taqarrub ila allah koor bu ñu ko bëggoon a xam la ci gàtt dañ naan maanaam mooy jàpp mooy téye ñaari bànneex yi nga xam seen mooy gunge doomu aadama muy bànneexu biiram ak bànneexu sawkaayam mu téye ko bi nga xamee ne fajar gi dëggu na li ko dalee foofu ba keroog jant bi di so ndax booy xool fajru dañ naan day am ñaari fajar am na ñu naan al fajru kaadib am na ñuy wax al fajru saadiq kon fajru saadiq googu mooy fajar gi nga xam si ne leer gi dafay tàmbali fa gën a sori ca penku ba matalem boolem gox ya wuti soowu am na fajar goo xam si boo yewoo mel na lu mel ne ay côté trois heures da nga seen lu mel ne genn cokkoor goo xam si ci digg asamaan rek lay nekk te du matale loolu dañ naan fajar googu fajar dëggoogut nga boobaa bu fekkoon ku war a woor la maanaam lekk ca heure boobu du tax kooram yàqu waaye bu fekkoon koo xam dafa war a jug julli fajar masalan heure boobu bu ko jullee julli di wéragu ndax fajar gi nga xam si ne mooy tax ñu war a julli fajar ak seegut kon daal bu ñu ko waxee mooy nit ki daal war a téye ñaari bànneex yooyu muy bànneexu biiram ak bànneexu sawukaayam du nga xam ne du sañ a lekk du sañ a naan waaye du sañ a joteeg ay soxnaam tamit li ko talee ci fajar gu dëggu gi ba nga xam si ne fi la jant bi sooyee diggante boobu mooy diggante bi nga xam si ne buñ koy taxarif mën na ne ci sariha loolu mooy koor tey nit ki bu koy def da koy def yéene ci jaamu yàlla maanaam def ko ngir koor gi mën koo xëcc jegele ko ci jaamu yàlla kenn ku ne xam ne alayhi salaatu wasalaam mësta dañ ci e, ay jaamu yàlla jamono ju nekk rek daan jaamu yàlla waaye wax na ne saa su kóor ñoon rek ay jaamu yàlla am daraan yokk ay jaamu yàlla am da ko doon yokk bu baax a baax rawatina nag bu ñu demee ba ci la nga xam ne mooy fukki fan yi nga xam si ne moo mujj ci koor kooku wax na ne sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan yee waa këram ñëpp takkaayu bu baax a baax fas yéene dundal dundal fukki fan yi fukki fan yi mujj yooyu ndax dàkk gi ci daan dàkku laylatul xadri kon loolu ak gàttal la ci ñu xamal leen lan mooy koor koor nag ngëneel yu màgg màgg màgg la làmbool am na ngëneel yu màgg màgg koor tamit mën na ne ibadatan badaniya yataxarabu biha alhabdu ilallahi tabaraka wa taala maanaam jaamu yàlla la goo xam ne yaram moo koy moo koy sarse yaram moo koy sarse woo waaye sarse woo gi mu koy sarse woo koy def ngir ngir jege boromam subhan boromam subhanahu wa taala bu ko defee fa yastaxiqu bihi minhu subhanahu asima sawaab wa faqad waxada allahu tabaraka wa taala ashaa'imin almuxlisin jasilul xataay ala lisaani nabiyihi kon bu ko defee maanaam woor googu bu ko jaam bi defee dafay yeeyu ci moom nag ci ngir def gi mu ko def yàlla suñu borom subhanahu wa taala euh, jox ko ci fay gu yool bu rëy rëy te it suñu borom subhanahu tamit digg na maanaam ki nga xam ne si ne mooy woor weeru koor woowu digg na ko tamit fay gu màgg a màgg ñi nga xam ne dañuy woor ba pare di sellal seen koor euh, di sellal koor gi suñ boroom digg na leen fay gu màgg a màgg ci koor googee jaarale ko ci làmmiñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, am na benn xadiisu qudsi yu boo xam ne si ne da ngeen faral dégg lu bëree bari waxtaankat yi di ci wax muy xadiis boo xam ne si ne jële nañ ko ci Abu Hurayra radiyallahu anhu mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa wax na sunu borom dafa wax ne bépp doomu aadama jë jëpp jëf joo xam ne doomu aadama euh, jëf na ko nee na jëf joojee moom la ñu yal ba mu des koor sunu borom nee na koor moom maa ko moomal sama bopp te man maa koy fayal sama bopp loolu kullu amilin ibnu aadama lahu ila siyaam fa innahu lii wa ana ajisi bi kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëf joo xam ne doomu aadama jëf na ko rek jëf ja moom la yal ba mu des koor koor man maa koy fayal sama bopp maam bu ñu ne jëpp-jëf joo xam ne doomu aadama jëf na ko rek mooy suñ borom kenn ku a xam ne xibaadaat yi daa am dana léeg-léeg nga dégg mu ne man jaa bil asana falaw asru am saaliha kon nit ki bu jëfee jëf ju baax suñ borom mën na koo fayal fukk mën na ko koo fayal ñaar fukk mën naa dem ba téeméer mën naa dem ba junni mën naa dem sax ba fanweeri junni wala ba lu ko ëpp mooy xool daal comme lu ko soom mu ful ko loolu mooy jëf yi nga xam si ne mooy yéen jëf yi nga xam si bokkut ak koor nga xam si ne dañ koy wutal ab takk naan la boo defee nangam ñu fay la nangam ñu fay la nangam waaye loolu nag mën nay bëri mën nay bëri waaye mën naa am fu mu yem mu ne koor nag moom koor moom mooy sama yëfi bopp am si na moom fay gim ci fay doomu aadama tënk ko ci tënk ko ci maam euh, tëkk ko ci comme yéen ñi mu takkoon ci yéen jëf yi nga xam ne di di di di di naan danaa ko fay nangam ba ba nangam lii moom dane moom maa ko moomal sama bopp comme kii dafa toroxlu ngir man bàyyi lépp ngir man kon lii danaa ko ci fay goo xam ne man yàlla rek rek rek maa xam fay gi ma koy fay waaye amul keneen koo xam ne mën naa xam loolu kon loolu tamit di yool yi nga xam ne tiyaaba ji nga xam si ne koor am na ko xadis ba di continuer ne euh, ne koor ci boppam pakk la maam euh, ab pakk la mooy dafay dox defa day nekk ab différence diggante doomu aad diggante doomu aadam ba di dof ay ñaaw téef dégg nga ndax fa isaa kaana yawmu sawmi ahadikum fala yarfasu wala yazgab wala yajhalu fa in saatamahu ahadun aw xaatalo falyaqul inni imruun shaa'im marratayni wala si nafsi muhammad bi yeddi la xulufu fami saimin atyabu inda allah yowma alxiyaam min rexil miski wa saim farxataani yafraxumaa isa aftara farixa bi fatrihi wa isa laqa rabbo farixa bi sawmihim yonente bi salaa salaam continué ci hadis boobu di wax ne wax ne ki nga xam si ne nag dafa woor bu mu nekk di def li ñuy wax rafas euh, rafs nag bu ñu ko waxee mooy maam wax ju bon joo xam ne si ne danga koo jëf wala nga koy wax mooy al xubxu fi l afxaali wal wal aqwaal mooy ak mbon koo xam si ne doomu aadama da koy feeñal ci ay waxam ak i jëfam kon biir xadis boobu yonente bi aayawaa ne kii koor maanaam diggante bi mu koor na fexe ba bu mu fi jëf jëf joo xam ne jëf ju ñaaw muy feeñ ci moom wala mu ci wax wax ju ñaalo joo xam si ne day feeñ ci moom ñaareel bi tamit tudd na ci baatub jaxlu moo ne bu mu réere li baatu bu boobu mooy koo xam ne da ngay wor di euh, ŋàññante ak di waxante wax ju ñaaw ak lu lu nuru yooyu euh, di diirub koor bi euh, na góor góorgóorlu ba loolu bu mu ko ci dal ñetteel ba tamit baatub kaf maanaam tudd na ci kaf mun kaf mooy rafu sawt jiddan mooy koo xam ne dafay faral di yëkkateem kàddam lu koy lool kon ki nga xam dafa woor dafa war a nekk koo xam dafay xook ak noppi na na na na faral di jàng alxuraan lu bëri bis bi bu mu bu mu bu mu sànq taam ci bis bi mu woor kon na fexe ba bëccëgu bi bëccëgu koor bépp na ko durus ci alxuraan yi na alxuraan yi la na dem ba gémmiñam sax di ñàkki lor ngir jàng alxuraan lu bëri boo ko defee mooy loolu dana tax li nga xam seen tiyaaba ji màgg ji nekk ci koor gi mu mën koo am ñeenteel ba tamit tudd na ko ci xadis bi mooy dane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ki nga xam ne dafa weer dafa woor xet gu nga xam si ne mooy génnee ci gémmiñam gi di nuur xat gu xaw doy waar dafa wax ne moo gën a teey fa yàlla xetu misk misk kenn ku ne xam ne benn xeetu parfum la boo xam ne bu am am solo bu neex a neex nee na li neex nee na ki nga xam dafa woor ba ngoon xet googu ko ci gémmiñam gi xet moo gën a teey ci yàlla euh, misk bi nga xam si ne mooy génnee ci gémmiñu doomu aadama boo ko defee suñu borom tamit ne ki nga xam si ne dafa woor ba ngoon nee na dana bég ñaari bég ndax waxtoo may bég waxtoo may dog danañ ko dana bég waaye ëllëg bu dajeeg man tamit incha allahu taala dana bég bu baax a baax loolu di loo xam si ne loo am am solo la ci ñu bàyyi ko xel baax a baax sëriñ tubaa sun jàmbaar ji xaadim rasul dafa wax ne mbooleem loo xam si ne maanaam nit ki mi ngi koy sàkk rek ci ngërëmal yàlla rek na xam ne si ne koor moo ci kawe lépp loo xam ne nit ki mu ngi koy def te ji sàkku ngërëmal yàlla rek bay boo moo xam si ne loolu koor moo ci gën ndax dana ama siyaamu fa ama siyaamu foo min afdali man talabat talabta mardatan wa niama nee na xamal ne koor kat mooy ngën ji la nga xam si nit ki moo koy sàkku te di ca wër ngërëm ngërëmal yàlla ak i xéewal jëmmi koor lépp lu doomu aadama di sàkku te di cay wut ngërëmal yàlla ngir suñ borom defal ko ci ay xéewal nee na xam ne si ne koor moo ci jiitu ndax li inna fil jannati baaban la yaqib fiihi siwa ahli siyaami fahtasib sëriñ Tubaa nee na am na ci àjjana benn bunt bu fa nekk boo xam si ne moom la ñu wax rayaan boo bunt boobu nee kenn du ci dugg ku dul ñi nga xam si ne ñoo doon wor kon loolu koor googu amel na ngeeneel woo xam si ne yéen jaamu yàlla yi bokkut ak moo amuju ajjana am na benn bunt bu fa nekk boo xam si ne ku dul waa ñi doon wor rek ëllëg duñ fàddu ca bunt boobee euh, mu bokk ci li nga xam si ne gudd ngëneeli eh, guddi gi muy weeru koor am na ko weeru koor ci lañ wàccee alxuraan te kenn ku ne xam ne alxuraan wax yàlla la te ci weeru koor wi ci lañ ko wàccee sahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaas wa bayinaati min alhuda walfurqaan kon bokk na ci ngëneel weer wi mooy wàcc gi nga xam si ne alxuraan wàcc na ko ci weeru koor wi bokk na ci ngëneel yi nga am na ko tamit ina euh, sóoratul xadri mooy laylatul xadri kon ci guddi gi la wàcc laylatul xadri inna anzalnaahu fi laylatil qadr wa ma adraaka ma laylatul qadr ila axiri aaya kon maam ngir sun borom fonk gi fonk weer gi ak ngëne li ci nekk yëpp ndax laylatul xadr googu dañuy wax ne maanaam xayrum min alfi shahri maanaam guddi la goo xam si ne boo doon ja boo doon boo ko dàkkoon yàlla tey nga daje moom ci guddi gi maanaam tiyaabay juróom-ñett fukki at yu topp lañ lay fay tiyaabay juróom-ñett fukki at yu topp te guddi la goo xam si ne malaaka yi dañuy wàcc ànd ak jibril ba keroog fajar di jot guddi gi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom demoon na bokk koy waaj a xamal waaye lëmalaat ko ko moo tax mu ne ko inaan sana fi ma adraka maa laylatul xadri nga xam ne moom xamaluñ ko laylatul xadri waaye wax nañ ko ngënee li nga xam ne si nag moom la am boo ko defee nga xam ne laylatul xadri moomu borom xam yi dañ ciy def ak wuuteegu yaatoo yaatoo yaatu nga xam ne si ne am nañu ne maanaam fukki fan ak ñaar fukki guddi ak benn la am na ci borom xam yi ñoo am dañu ñaar fukki guddi ak ñett la am nañu ne ñaar fukki juróom waaye lépp ci wax ulama yi ñaar fukki juróom ñaar lañ wax lépp ci ulama yi ñaar fukki fan ak juróom ñaar lañ wax nga xam ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam suñu daan àgg ci fukki guddi yi comme nañ ko waxoon ci départ léegi danaan yeewaa kër fukki guddi yu yu mujj yëpp dañ koy dundal bu baax a baax ngir dàkk loolee nga nga xam ne mooy ngëneel li nga xam si ne moo am ci ci ci ci guddi googee bu ko defee tamit Serigne Touba radiyallahu anhu am na euh, xasida koo xam si def na ko tëkkoon tënkoon ci maanaam nan la ñuy dàkke laylatul xadr bu feeñee altane danaan la bis sàngam la bu feeñee talaata mun na la bis sàngam la bu feeñee ajjuma ñu ne la bis sàngam la ba keroog semaine bi semaine bi ci moom nag bi muy wax dana la lenn ci borom xam ne moom Serigne Touba saa suy wax day sukkandiku ci waxi borom xam yi ko jiitu woon lu ci ëpp nga am si ne jékku-jékku dogu ne loolu la waaye borom xam-xam yi nga xam si ne wóor wóor na leen nawloo seen xam ci li ñu tënkoon ci la jëlaat moom def ko ay abiyaat tënk ko damaa koo fàtte noté sax waaye kon dama koy indiwaat waaye dama ko fàtte noté kon loolu yi loo xam si ne tamit dañ ko bàyyi xel ci guddi gi guddi gi doomu aadama yëpp war cee góorgóorlu tamit ci di ko dundal ci jàng alxuraan jàng alxuraan mu bari dañuy wax ne saxaabatu kiraam ridwanullahi alayhim dañ daan def ñoom saasu weeru koor ñëwee bal seen duruusi ilmiya yi sax dañ ko daan dañ ko daan dañ ko daan bàyyi ngir bëri lu ñu jàng alxuraan fi ne boo demee ci dëkk bi lu mel ne daara sëriñ Habibu sëriñ Habibu laay imaam wa uh, bu saa su koor daan ñëw day tëj jalsa bi nga xam si dootuñ jàngale te xam-xam uh, di fes yéen nag dundal koor gi ba mu jeex nga am seen ne ko ci saxaaba yi nga xam si ne ñooy saxaabatul kiraam nga am seen ñoom daal alxuraan daal lañu jëloon gën koo ëppal ci seenu dund ci jamonoy weeru koor dañ ko daan maanaam boo ko doon mën a jàng yow mi yenn sax nga xam da ko mën a jàng ci bis bi boo ko mën tamit nga jàng xaaj bi boo ko mënta jàng tamit nga fexe ba nga jàng ci eh, justul awal eh, def ko ñeent fan daal noo ko mën a séddale waaye li nga daan jàng ci alxuraan daal bu koor ñëwee na nga fexe tamit ba yokk bu baax a baax incha allah bokk na ci tamit ñu war a bàyyi xel ci koor gi mooy eh, taxawaay gi nga xam si ne ñu ngi koy taxawal alxuraan ci jàkk yi loolu di loo xam ne si ne yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi bàyyiwu ko fi woon. waaye Seydina Omar moo ñëw ginnaawam daal ko koy e, def yóbbu nit ñi ci jàkka yi booba sax daan nañ ko defaay ci kër yi lañ ko daan defaay def ko por mbooloo moom Seydina Omar mooy ki njëkk a ki ko njëkk a taxawal muy sunna soo xam si ne e, muy bidaa bu rafet ñoom nixmat nixmal bidaa kon muy bidaa ju rafet rafet nga xam si ne booba léegi ñu ngi ko ci rey di ko ci def muy lu am solo loo xam ne e, jullit ñi war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax ak tëkku nag am na ci ki nga xam ne si ne dafa dafa dafa sàggane ramadaan maanaam ki nga xam si ne dafa sàggane ramadaan ak tëkku am na ci ndax kenn ku ne xad arafat ana sawma ramadaan ruknu min arkaani islam kenn ku ne xam ne suñu ne weeru koor ponk la ci ponk lislaam fa man hadamahu fa xad adam fa xad hadama al islaam képp koo xam ne si nag da ngaa bàyyi da ngaa da da ngaa sàggane koor maam sàggane ko yaa ngi mel ne kuy màbbu lislaam ndax li anal islaama laa yastaxiru ilaa bi arkaani alxamsa islaam mënta sax ci lu dul ponkam yi juróom mooy da ngay gëm ne yàlla am benn buur bu dul yàlla sayyidina Muhammad mooy ab yonenteem taxawal julli woor weer ko añ màkk nat asaka boo ko mënee juróomi ponk yi boo ci sàgganee benn dafay mel ne yépp ngay bàyyi mi ngi mel ne mbaar muñ taxawaloon rek nga am seen ñeenti jën yi moo ko téye te benn mun ci ñàkk nga dindi benn bu benn ba dene ni mbaar mi rëse boo bàyyee benn arkaan ci islaam yi alxamsa da kon noonu lay daal di mel ci yow nga xam si ne fa aftara fi nahari ramadan mutaammidan min xayri usrin fa asaabuhu sadid wa iqaabu alim wala yaxni an il yowmi lesi aftara siyaama dahri wa insaamuhu nga xam ne kenn koo xam si danga dog benn fan ci weeru koor benn fan da nga ko cee dog nga tay ko te amoo lenn ngànt lu xam si ne mooy waral nga nga nga nga dog xamal ne mbugalum yàlla mu tara tara tar mi ngi lay mi ngi lay xaar tayit bis boobee sax boo wëlbatikoon di ko woor xamal ne si ne du jariñ dara dara dara ndax woor nga loo xam mu ne kii nga loo xam si mënatoo ko boo wooroon sa sa sa jamono jëpp sax boo wooroon sa jamono jëpp sax bis boobee nga dog ci ramadaan tey ko sa jamono jépp boo ko wooroon mënu koo fay ndax jële nañ ci ah, abi hurayrata radiyallahu mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne man aftara yawman fii ramadan fii xayri ruxsatin raxasaha llaahu lam yaqdi siyaamu dahri kullu wa in saamahu rawahu abu daawud wa ibnu maaja wa tirmisi nee na jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne képp koo xam ne danga dog ci weeru koor maanaam dangaa dog ci weeru koor ci lu boo xam ne yàlla moo ko def ndax am na rox sayu ci am lu mel ne am mag moo xam ne dafa màggat wala jigéen koo xam dafa tollu étape wala koy nàmpal yooyu am na ay yoo xam si ne bu ñu fa àggee may nañ leen ñu bañ koo bàyyi ñu bàyyi ko ba ba ëllëg ñu fay ko bu dee mag mi moom mën na koo bañ a fay waaye saa su dogee mu am lu mu joxe ku dul ñooñu nga xam yàlla ci bopp moo leen ko yoola malal nee na kooka bu doon weer mboole bu doon woor mbeelo mbooloom jamonoom na xam ne si ne mënta bis boobee mu dog saxale ne ramadaan ci lay saxe maam ci ban jamono ci la Ramadan di saxe kenn ku ne xam ne ramadaan saa suñ demee ba ci weeru baraxlu buñ ca amee fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak juróom-ñeent boobaa wër nañoo séentu we war nañoo séentu weer wi saa soo xamee ne gis nañ ko buñ xëyee ca suba ga mooy benn fan bi njëkk ci Ramadan. bu yàlla dogalee gisuñu ko tamit kon nañu continuer mottali fanweeri fan loolu tamit xadis saxal na ko ndax euh, borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci weeru koor du mu sax mukk li du ci ñu gis terutali mooy buñ ko gisee ndax li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suumu li ruxyati wa aftiru li ruxyati fa in gumma alxilaal fa akimul iddata saban salaasina yowman yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu ni ngeen woor boo leen ko gisee waaye ni ngeen woor ni ngeen woori boo leen ko gisee bu fekkee tey al euh, euh, kii bi soow bi dañoo dem ba ci jamono ji moo xam lu mel ne lu am ay niir ba mënuñoo gis weer wi nee na kon nan mottali fanweeri fan te mooy kon saxbaan bi nañ ko mottali fanweeri bu sa ëllëg saa di nekk bis bi nga xam si ne mooy njëkk ci ci ci ci ci ramadaan xadis boobu boo demee ci Buxaari ak Muslim da ko fa fekk kon wale kañ kañ la kañ la maanaam koor di war mu mukallaf mata yajibu alal mukallaf sawmu ramadan kañ la koor di war mukallaf du ceegi ne maanaam weer day sax rek mukallaf mu ne koor war ko am na ñoo xam ne am na ngànt loo mënuñoo mënuñoo woor am na ñoo xam si jamonoy koor bu tàngee duñ mën a woor am na ñoo xam si ne seen xel amuñum xel mënuñoo woor kon mën ngaa nekk mu mukallaf waaye am na yeneen yu la manqué yoo xam ne ci sarti koor la kon kañ lay koor di war mukallaf kon Euh, maam koor tamit balaa war mu kalaf li alxuraan fa man shahida minkum sahara falyasamu képp koo xam ne gis nga weer wi képp koo xam ne gis nga weer wi war ngaa war ngaa war ngaa war ngaa woor képp ku gis weer wi war nga woor wala ñaar ñu maandu ñoo xam ne si ne xam nañ seenu maandu te duñu jëf bakkaar yu mag yi ñaar ñoo xam si ne wala mbooloo moo xam si ne miinuñ leen ci fenandoo mbooloo moo xam si ne miinuñ leen ci fen wala ñoo xam si ñu maandu na ñoo xam si ne jëf bakkaar yu mag yi bu ko defee loolu tamit mën naa saxe ci koor kon koor mi nga war ki nga xam si dafa nekk mu mukallaf muy benn ba pare nekk ab jullit kon wóor ku keneen ku dub jullit boo wooree sa koor duñ ko jàpp mu nekk koo xam si dafa am xel kon koo xam ne dafa safiix wala noonu kooku koor wóor ko kooku xam si tamit dafa baalix mooy dafa dafa kàllafe benn moom fukki at juróom-ñett wala mu gis karo naq wala mu gis karo poqotaan wala yu demee noonu kon boo ko defee ñooñu ñu xam ne daal mooy ñi nga xam ne si ne koor euh, war na leen boo ko defee tamit euh, li ñuy wax atadrib mooy tàggat ndaw ñi mooy ndaw ñi warees na leen tàggat ci koor atadrib mooy ndaw ñi war na leen tàggat ci koor kenn ku ne xam ne ne koor warul gone kenn ku ne xam na koor warul warul gone waaye war na ci ay kilifaam ñu tàggat ko ci ñu tàggat ko ci Euh, bu fekkee gone gi bu ko ci tàggatoo coono bu metti du ko ci fekk woor ndax kenn kon a xam ne saxaaba yi ridwaanulaay alayhim ñoom dañ daan tàggat seen doom yi ci koor bu baax a baax boo ko defee kon euh, loolu bu jàllee ñu xamle nag lan mooy lan mooy ponk yi nga xam si ne mooy ponki koor euh, po koor dafa am ay farata comme ni nga xam si ne noonu la ko yeneen yi ci des yëpp amee Euh, loolu euh, boo demee ci njàngalem sëñ bi da ngay dégg mu lay téereem bi mu njëkk a jàngal rek da ci xamal lan mooy arkaani euh, kii li li nga xam si ne mooy ponki koor ndax dane siyaamuna lahu faridataani bila shiyaadatin wala nuqsaanin sëriñ tubaa nee na sunu koor nee na am na am na am na ñaar ñaari farata ñaari farata rek la am ñaari farata deesu ko dolli waaye deesu ko wàññi ñu ne ko ñaar yooyu mooy yan mu ne niyatuna wa kuffana an muftirat li wajhi baaxin mut'imin bi tayyibaat ba ci njëkk mooy yéene yéene nag bu ñu ko waxee du lu ñu tudd ci làmmiñ waaye looy fas ci sab xol la fii nii bu tey jii ñu ngi ci ñaar fukki ñaar fukki fan ak juróom-ñett bu yàlla dogaloon suba ci heure bii bañ séentu gis euh, weer wi guddi googu rek dangay fanaanoo yéene ji benn yéene bi tamit mën nga koo jooyal mu matale mboolam weer wi nga am seeni benn yéene bi mën nga koo dem ba we ba ba ba ba koor gépp jeex ci kurul koo xam si dafa am ngant ci diggante bi ba ngant ba ngant la jeex mu commencé door kon boobaa guddi gi jot dana bee salaat yéene bi wala koo xam ne dafa amoon euh, tawat ju ko daloon ba mu dog ñëwaat di dabaatawaat kon kooka euh, dana dana bee salaat yéene bi guddi gu jot ndax Euh, euh, lépp bépp woor woo xam si ne woor faatar rek boo koy def benn yéen rek mën na ci day weer wépp bu ko defee nga xam ne yéen jooju nag lu mënta ñàkk la képp koo xam ne fanaanoo ko rek du am nañ ci sunu yaay Hafsa radiyallahu anha mu ne man lu man lam yu bayiti siyaam min al-layli fala siyaamu la képp koo xam si ne fanaanoo koor ci guddi gi rek na nga xam si ne na nga xam si ne amoo koor ñaareel ba mooy nga fegu ci lépp loo xam si ne mën naa yàqu koor waaw moo xam lu ñu wax la moo xam lu ñu jëf la li ko commencé ci fajar gi bi mu xaree ba jant bi so nga fegu ci ci lépp luy doo koor neen loolu tamit warees na ko wattandiku baax a baax bu ko defee koor tamit mi ngi am moom ñett sunu kon ñaari farta mooy yéene ak fegu ci lépp loo xam si ne moo lay dogloo ba ca topp mooy sunna yi am na ñetti sunna moom koor moo tax boo demee ci tasadu saa da nga dégg Sëriñ Tuubaa ne masnunuhu salaasatun inda labib taajilun al futur min baxdil xurub Euh, wasaani taaxiiru soxoori layla saalisa kuful lisaan kaful lisaani xawla kon sëñ Tuubaa ne ñetti sunna la koor am xam ngeen ne mooy euh, tahjilul futuur mooy gaaw a dog maanaam saa su jant bi sooy rek nga dog rek loolu mooy sunna maanaam doomu aadama bu ko yàlla defalee nga ne wërta puukari naan di jaay man damaa man dara di dem ba ca kanam kanam loolu amul solo ndax yonente bi nee na laa yasaalu naasi yàlla yasaal naas bil xayri maa xajalul futur maa maa xajalul fitra yonente bi sallallahu alayhi wasallam sama xeet wi laa tasaal ummati bi xayri maa daam xajalal futura li feeg ñi ngi gaaw a dog bu jant bi sooy rek nee na aw yiw di di aw euh, di wàcc seen kaw waaye kenn ku ne xam ne tamit xëdd tamit des ko war di yeexee maam da war a bàyyi ba diggante xaruk fajar gi ak diggante bi ngay euh, bi ngay bi ñu salaatoo lum néew ne borom xam-xam ñu ngi koy àpp pare ci 15 minutes. quinze mille ndax kenn ku ne xam ne xëdd luñ fonk la ñu bëri dañ koo xaw a lu mel ne li ñu waxee mbëstal la ñuy def bu ñu bàyyi ba trois ci guddi ñu xéewalu bu ñu nelawaatee bala ñoo yeew jant ba fenk xam nga loolu kenn nga xam ne du yëfi nit lii nit mooy da ngay yeewu ci fajar gi xéewalu toog xaar ñu salaatu nga julli ba pare booy nelaw nga doog a nelaw ndax yonent bi neen tasaxaru fa ina fi suhuril barak mooy neen xëdd ndax xëdd ci bopp am na barke kenn ku xam ne Sayd mas nañ koo laaj ne ko euh, mu ne dafa wax ne man mas na maa ànd ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam xëdd ñu ne ko lan mooy diggante bi yonte bi sallallahu xëdd ak diggante bi nga xam si ne ci lañ ci ci lañ salaatu mu ne diggante juróom fukki aaya juróom fukki aaya borom xam ne commencé après juróom fukki aaya mënees na koo jàng ci fukki fan fukki fukki fukki waxtu juróom fukki minute ak juróom ñii ñaar fukk moo diggante bi nga xam ne moom ngay bàyyi lekk ak bi ñuy salaatu lum néew néew na ma diggante na ma na ma euh, fukki fukki minute ak juróom kon loolu daa mel ne ñu ngi signalé nañu waxtu euh, agsi nañ fi ñu war a yam kon lépp ñu ngi sant yàlla tey gërëm tey ñaan suñu borom ñu dugg ci ci jàmbu euh, def ko ni nga xam si ne moom lañu ko moom lañu ko digalee lépp loo xam si ne ay ibaadaat lay ci nekk suñu borom kàttanal ñu bañ mën koo def lépp loo xam ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay safaan la sun borom sun borom musal ñu lépp loo xam ne am na ci ak dëng-dëng ñoo xam ne aji wax ji moom matut waaye bëggoon naan leeral bu baax a baax kon ñu ngi sant tey gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Baye Dame ci waxtaan wu am solo waaw nga xam si ne yaa ngi ci doon def jëme ko ci koor ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci leeral gi ci leeral gi ca mu mel ne képp koo xam si ne yaa ngi doon am ak teewlu sëñ bay Daam leeral na la lan mooy koor farata yi sunna yi ak li nga xam si ne moom lañ tere ak li nga xam si ne moom lañ sopp ci weeru koor kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm loolu sax moo tax am ay laaj yoo xam si ne daa ñëwoon ci biir waxtaan wi ndax ki ci njëkk daa wax ne ndax gone war naa woor wala déet nan ñi nga xam see ne mooy sart ñi war a woor waxoon nañ te na baalix te ku baalixu rek da bokk ci cadrement gone waaye waxoon na ne sopp nañ ci moom ñu tadrib leen mooy ñu tàggat leen ci koor ñu tàggat leen ci koor bu fekkee nag du nekk diisaay boo xam si ne mën na leen indi bu diisu ci ñoom bari daal war nañ jee tàggat ndax buñ nekkee mag yàlla dogal ñu tàmbu ndax saxaabatu ridwanullahi alayhim daan nañ daan nañ tàggat seen ngone ci koor bal daan na leen yóbbu si jàkka ji sax waaye buñ daan dem ba yëg ne xiif na wala ñu mar dañ leen jox ñu naan toogaat ñu ànd ak ñoom ba dog jot am loolu buñ ci bu buñ leen ci tàggat bu buñ dem ba mu war leen day fekk mooyof ñoom lool waaye gone moom koor waru ko waaye wares na leen cee tàggat comme ni nga xam noonu la ñeen tàggati si julli ak jàmb yàlla mooy tax buñ demee ba toll ci fekk seen cër yi làgga ci yaakaar naa loolu mooy laaj bi te leeral gu am solo googu mbokk mi tamit day laaj ne ki nga xam ne dafa woor ba digg ba mu wàccu lan mooy ab àtteem waaw wàcc ci koor de am na bu fekkee boroom xam-xam yi dañuy wax ne bu fekkee nit ki dafa koor ba si àgg mu wàcc bu yàlla dogalee maanaam dara jëlut dara jëlu ca la nga xam si ne ca la doon wàcc mu galaandiku mu dara nekku ca waaye bu dara jàllee rek xamal ne bis boobu moom da koy kónni nag ba ngoon jot waaye saa su weeru jeexe war naa fayaat bis boobee ndax lépp loo xam si rek mën naa àgg ba ci mbàq rek moo xam fu mën a jaar moo xam daa jaar ci nopp wala dafa jaar ci bakkan wala mu jaar ci bët wala ci gémmiñ ndax ah, li ñuy wax al alxa dafa dafa correspond ak cër yu bari ci doomu dama adama fu ci ndox mën a jaar rek ba àgg ci ma maayi dara rek li ñuy wax euh, mbàq gi rek xamale meexdata gi kon boobaa mën naa yàqu koor kon kooku moom bu fekkee yàlla dogal na loolu nag mooy bu fekkee si njuumte ci njuumte la waaye bu fekkee sax moo ko luucul boppam génneel ko boppam kon boobaa mën naa yàqu koor gi bu fekkee njuumte la nga xam si ne moom daa jekk-jekk rek noot ko waaye bu fekkee moo ko tey moom jëpp jaamu yàlla goo xam si ne rek dañ ko faral jaw boo ci defee lu ko mën a yàq te tey ko rek mën naa yàq jaamu yàlla boobu waaw jërëjëf sëriñ te leeral mat googu nga mbokk mi tamit dafay laaj ne ki nga xam ne dafa woor ba digg bëccëg mu gis baax lan mooy ab atem koor mi ngi saxe ci diggante bi nga xam si ne fi njëkk fajar gi di xar ba jant bi so diggante boobu dara luy gàllankoor doomu aadama ci waa ci li ko waru ko ci am même bu doon dafa dem ba heure bi nga am seen digganteem ak dog la ca des ma dix minutes ci des mu gis ci ngaantit kon na xam ne bis boobee incha allah da koy fay ndax gis na lu mi ngi mel ne bu ko gaaroon ci julli rek lépp loo xam si ne bu la gaaroon ci koor dalaa gaar ci koor ci euh, xeeti baax ak yu demee noonu ci bis bi lu mën a doon rek baye boo nga jàpp ne day yàqu koor waaye boobaa nag moom moomee nga moom gis baax la des ca bëccëg mën naa continuer di ko lekk waaye boobaa na suturaal weeru koor na mooy na nëbbatu bu mu nekk ci di di lekk ñu ko gis ak yu demee noonu saa soo demee ne ba nga xam si ne set na ci weer wi bu ko defee mu daal di continuer waat koor googee bu weer wi jàllee saa su ko mënee fay mu fay ko bu ko defee ne saa su demee ci bis si mujj yi nga xam si ne war naa set war nay nemmeeku bu baax a baax di xool boppam ah, maanaam eh, bu fajar gi dee war a eh, fajar gi dee war a fenk jant bi dee fajar gi dee war a di waaj fenk mu dem ci biir visite xool ba xam li ñuy wax eh, ak set am na ci moom déet ndax bu amee seet foofee mën naa gaaw yéene foofa bu ko defee kooram dana wér bu ja bu euh, bu bu jant bi bu paree ma daal di daal dem jubali sangu ndox seet gi moom ak yéene ji moom jotewuñ dara nit ki mën naa am jana ba pare kooram sax mel na koo xam ne dafa sëyoon ak soxna ba pare tëdd ba jant bi fenk kon boobaa tamit du tax ñu ne kooram yàqu na waaye mën naa bu jugee bu jugee bu yéene ci guddi gi rek bu jigee bu sangu rek incha allah kooram dana baax. jërëjëf sëriñ Baye Dame mbokk mi day laaj ne ki nga xam si ne maam daa dog ci bëccëgu weeru koor ca amul benn ngànt bu ko tee dog xanaa da koo defee ci coobarem kooku mbokk moomu ana lan mooy ab atem kooku buñ digloo waxtaan wi jàlloon na ci biir maanaam koo xam si ne dangaa dog ci ramadaan te tey kafaara la war def ndax euh, day day kafaara kafaara nag mooy dafa war a woor ñaari weer yoo xam ne si ne dafay tegaloo te ñaari weer yoo saa su dogaatee benn bis da koy tàmbaliwaat ñaari weer tey boo ñaari weer yooyu bu ko defee ba mu tegaloo te dugg ci sax du tax lam dog ca koor mu mën ko koy ndax waxoon na la hadis bi nga xam ne Abu Hurayra nettal na ko léegi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neen képp koo xam si ne dangaa dog ci weeru koor ci kudul ki nga xam seen yàlla da koo defal ak woyefal na koo xam ne ne bu doon woor li des si jamonoom yépp ngir bëgg a fay bis boobee mënu koo fay kon nañu wattandiku di jéem a dog ci weeru koor ndax boo ca xasee rek bis boobee li des sa jamono boo ci doon jaamu yàlla ay di woor bëccëg yi di naafilu guddi du tax nga mën a fay bis boobee te boobaa tamit war naa fa kafaara muy mu woor ñaari weer yoo xam ne dafay tegaloo te ñaari weer yoo saa su ko dogaatee benn fan rek war a tàmbaliwaat ñaari weer yi kon loolu yaakaar naa mooy àttab ki nga xam ne di sëriñ Cheikh Mbacke Ndiaye mu waxtaane lan mooy xidma bu ko defee bu fekkee ne waxtu wi guddiwul laaj yi nga xam si moo ci des ci laaj yi mu daat koy jéem a tontu moom it kon sëriñ Cheikh Mbacke bisimilah. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwata illa billahi aliyyil azim xaw naka yaa muin wa bika nastain waskur xilaami waxmat kalaami bila malaami walam tiraayi saddid lisaani nawir zanaani safi amaani wasit baraayi mbokk yi di yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara te di leen baalu xaq tey di leen ko baal di jiital ci nuyoo boobu ak siyaar bi Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ne moo fi toogal Seexul Xadiim suñu borom guddal fanam te mooy ko wér ba lépp lu mu yéenee liggéeyal maamam Cheikhul Khadim suñu borom may ko kàttan gu mu ko àggalee ànd koog mboolem taalibe yi waaye di siyaar ak a ñaanal ki nga xam ne moo fi toog toogaa yëpp Serigne Darou Hassane di Serigne Mbacke Fat Sylla Ndiaye suñu borom guddal fanam te may ko wér ba yéene ji mu liggéeyal am ngir liggéeyal maamam sëriñ Darou Hassane suñu borom may ko kàttan gu mu ko àggalee ànd kook mbooleem ay rakkam ànd kook mbooleem ay doomam ànd koog mbooleem ay taalibeem duñu dañ benn yoon sëriñ Mbàkke ibnu sëriñ Cheikh Mariyamu suñu boroom guddal fanam te mooy ko wér ba li mu yéene liggéeyal waajurum wa sëriñ Cheikh Mariyamu suñu boroom may ko kàttan gu ko àggalee ànd koog mbooleem ay rakkam ànd koog mbooleem taalibe yi di ñaanal suñu jàmbaar ja sëriñ Cheikh Mariyamu suñu boroom di ko dot ay may ak i xéewal te barsàqul Muhammadiya li fekk doomu aadamaa ngi dox ci kaw suuf mbokki tedd yi daayiratu jamaatul xayri amati mbégte dajawaat comme ni ñu ko baaxoo defee at mu jot ci waxtu wi amati nañ mbégte dajawaat ci jataay bopp baaxoo nañ ko amal saa bu ñu dëgmalee weeru koor ngir fas yéene dajale addi yi nga xam ne moom la ñu baaxoo amal ngir di ko jébbale ngir li Sëriñ Tuubaa wax ci addiya loolu nag nekkoon ci jamono yi sunu jàmbaar ja Sëriñ Cheikh Ahmad yàlla na suñu borom yokk ay leeram ba agsi tey jii ci doomam ju baax ji di sëriñ Mbacke suñu borom yàlla na ko fi yàggal te mu wér muy jataay boobu nag baaxoon nañ ko amal at mu jot laata sëriñ bi di génn si muy waxtaanu diine woo xam ne danañ ci fàttali suñu bopp di ci fàttali ñëpp ren yàlla dogal ñu ànd ceeg waa daayira xidmatul muridina bu kër Serigne Talla seen taxawaay bu rafet ak seen xalaaxa bi ñu am jamaatul xayri ci seen euh, xalaaka boo xam ne ñoom ñoo ko xalaat muy institut bu rafet ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi le ba yàlla dogal ba ñu agsee ci ren bii ñu ñaanoon leen bu ñu agsee ci jataay bi ñu ànd ak ñoom waxtaan wi kon yaakaar naa li ci jàll leer na tegu na ci xam-xam muy sëñ Daam Njaay mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi jëmee ko ci weeru koor moom itam ñi ngi koy sant bu baax di sant jëwriñ yi nga xam ne moo jiite xidmatul muridina ak mbooleem ñu mu àndal góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di ñaanal Serigne Talla mi nga xam mooy jëwriñu mooy jëwriñu liggéey boobu suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér ak mbooleem njabootu Serigne Ousmane mbokk yi mu mel ne daayira bi tànnoon na def ñaari mawdon muy benn bi ñu jëmale ko ci koor sëriñ bi ñëw na ci lu yaatu yaatu leeral ci lu baree bari bi ci des nekkoon xidma xidma nekk ku tudd yoonu murit tudd xidma muy liggéey mu nekk loo xam ne képp ku ci bëgg a waxtaane danga ko jàng danga ko jële ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa waaye danga nga delluwaat ci sahaaba yi ni ñu doon dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, bu ñu waxee loolu kon xidma lu yàgg la lu sori la ndax ku ne xam na ne ki ngay liggéeyal il faut mu nekk koo xam ne sa jëwri lay doon mooy wasila ndax ku ne xam na ne Serigne Touba mooy Serigne wala yonent bi mooy Serigne ci Serigne Touba kon mbooleem ñu toppoon ci am ay jëwrin lañu ba loolu moo tax jaayante amoon ni ñu ko alquran waxee laqad radiyallahu anil mu'minin kon loolu tegtale na jaayante lu yàgg la waaye ginnaaw bi mu amee lii leeral ne xidma yàgg na ci islaam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baatu xidma buñ ko waxee mooy ki nga xam ne day liggéeyal yàlla ci jaam loolu nag ci gàttal buñ ko mënee jàngale dañuy wax ne kon saxaaba yi ñoom ñoo njëkk def loolu ndax saxaaba yi li tax ñu njëkk a def loolu mooy ku ne xam me ne ñoo doon tuur seen deret di joxe di joxe seen alal ngir diine islaam taxaw te tey ji diine islaam jooju bi mu taxawee kenn ku ne boo yaakaaree ajjana wala nga mën a dund sa diine nu la neexee te doo ci am benn jafe-jafe ginnaaw yàlla saxaaba yooyu ñoo tax ndax ñoo taxawal diine islaam ba mu am te alquran dañu ma waxoon ne bépp diine boo xam ne waaye mi ngi koy jàpp te du diine islaam na xam ne tànga la koy jural na xam ne jàpp na leneen loo xam ne du la yàlla gërëm wa man yabtaqi xayra islaama diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin waaye delluwaat waxaat ñu ne na ngeen bàyyi xel ne diine fa yàlla diine ji nga xam ne moom la yàlla reconnaître moom la yàlla nangu mooy fa yàlla mooy islaam kon ñi ko taxawal tey kon ñoom njëkk nañoo def xidma muy di euh, xare li ñuy wax jihaad ba islaam taxaw kon baatu xidma muy liggéey foofu la tàmbale waaye jëmul woon ci seen doole ya yëmul woon ci seen alal yooyee kese yëmul woon seen seen doole ya yëmul woon seen xalaat yan daan teg ngir mën a gañe ab xare waaye dañoo wàccoon ci daan joxe seen i hadiya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñenn ci yenn ñoo xam ne dañuy wax ne ya ci yoonu murit lañ ko xamee waaye nag ñooñu xay na seen xam-xam moo toll foofu waaye ku ne xam ne ne hadiya jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la woon ngir loolu tegtal bi ñu ci def mooy am na ci benn xare boo xam ne Seydina Ousmane ibnu Xafaan keroog ñu ngi doon dem ci xare boobu te amuñu woon lu ñu mën a yóbbaale ci ab yóbbal muy lu mel ni alal wala lu mel ni marchandise wala lu mel ni ay bagages yoo xam ne kuy génn da ko soxla woo keroog yonent bi salaay salaam am na njàqare moo xam ne wax na ne mosu am ngir lan xare boobu ñu waroon dem te amuñu jumtuwaay yéen ca war a demee keroog Seydina Ousmane moo ñëw génnee la mu yor. ci ay junni junni ay gëléem ak yañu ànd ak seeni sëf jox ko yonent bi salaay salaam keroog yonent bi salaay salaam wax na ne dafa bég ci moom di ko ñaanal di ko ñaanal di ko sàkkul ngërëmul yàlla ba fajar loolu Serigne Touba euh, jàngale na ko soo demee ci raaya da nga fekk Serigne Touba di ko wax. kon loolu tegtal na kon hadiya lu fi yàgg la waaye tamit bu ñu delluwaatee ci ndax hadiya xidma la. bu baatu ma bu ñu ñëwee pare muy liggéey addiya xidma la ndax Serigne Touba li mu ko jàngalee dafa wane Touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw ndax kon nit ki dana am texe ndax dañuy wax ne Touba buñ la ko mënoon firil dañuy wax ne ashajara fil janna muy garab la goo xam ne ma nga cee digg àjjana suñu borom moo fa jëmbatal boppam loola kon baatu Touba boobu loolu lay firi comme ni ko borom xam-xam di di di kon loolu tegtal la ci ne baatu Touba kon. ku ko am dëgg mooy kon wara na kon garab garab googe ci àjjana da nga bokk ñu fay féexloo muy kon texe googu ñu ne ko kan moo koy am mu ne li xab din kon d'abord li mu bëgg a jàngale mooy bala ngaa nekk ab murit bala ngaa nekk ab murit bala ngay nekk ab saadix bala ngay joxe liñ la laaj li li liy wëral ak murit balaa loolu di am dangay nekk ab jaam boo xam ne da ngay nangu njaam gi nga xam ne suñu bi nga xam ne suñu borom teg na la ko moo tax mu ne tubaali habdin muridin saadiqin bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaat kon bu abdil gi nangu nekkee ba nga nangu ko nekk ab jaam di jaamu yàlla nam la ware di woor nam la ware ponk islaam yi nga di ko matal nga daal di fas nekk nag murit bi xam ne dafa sóobu pour dem ci yoonu yàlla waaye boo agsee ci daraja jooju nga jàll ci nekk fexe ba nekk murid saadix te murid saadix dafa am lu tax mu war a mën a am ndax Sëriñ Tuubaa nam ñu ko jàngale woon dafa wax ne melekaanu murid saadix bi nga xam ne su nit ki su defee lii dana dem ba am darajey gaa yu baax yi ko jiitu ñu laaj ko mu ne loolu ñeenti tomb rek la comme ni ko Sëriñ Tuubaa jàngale xëy na dañuy njëkkante waxtu wi du ñëw ci euh, arab bi waaye ni ko Sëriñ Tuubaa jàngale dafa wax ne melaw murid saadix mooy maanaam di déglu sab sëriñ maanaam déglu sab sëriñ ci lépp maanaam tënku ci mbooleem ay mbiram yi nga xam ne si ne loolu lay digal ba ci mu wax ne mooy topp ndigalam maanaam ndigalal li nga xam ne si ne sëriñ bi mu ne koy digal te sëriñ bi lim lay digal munte weesu li nga xam ne moom la la yàlla suñu borom di digal kon kon ab sëriñ lim lay digal mooy li nga xam ne moom la la yàlla digal kon sa jëwriñ la joo xam ne dalaa wan ni nga xam ne noonu nga war a jaar ci yoon wi ànd ceeg yow nag ndax ku ne xam na ne Serigne Touba mbooleem ñu mu àndaloon danañ fekkoon ñu ay borom xam-xam fekk leen ñu ay niti yàlla fekk leen ñoo xam ne suñu borom am na lu mu def ci ñoom waaye ñu topp Serigne Touba mu am loo xam ne nekkuloon ci ñoom Serigne Touba def ko ci ñoom waaye mbooleem li Serigne Touba daan def ci ay jaamu yàlla di ko toggoo ci yàlla ñu mel ne moom dañ ko dañ ko daan toggoo ci ay jaamu yàlla boo demee ci sëñ Mbàkke Buso dellu ci sëñ Daaru Asan dellu ci mboolem mag ñu leen toppoon mbooleem li leen Serigne Touba daan digal Serigne Touba da daan nekkoon ñu ànd ak moom nekk ca loolu kon ab sëriñ bu jàpp ne da ngay jël sa mbir yépp rek nga jooyal ko tëdd fa nga nekk ba légal ba li la war ci ak jaamu yàlla doo ko def loolu mbooleem mag ñu toppoon sëriñ Tuubaa ak ñin defaroon nekkuñu woon ci loolu kon loolu bu ci delloo mu wax ne da ngay topp ndigalam bi ñu des mooy mbooleem tere yi tere danga ko bàyyi loolu buñ ko waxee mooy bu buñ ko waxee mooy tere yi yàlla tere kon yaamuruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar loolu rek moo am muy digle lu baax di tere ab safaan sëriñ bi amul loo xam ne da koy di da koy digle wala mu sañ koo tere wala mu sañ koo digle te nekkul ndigalu yàlla wala loo xam ne yàlla da koy tere Sëriñ Tuubaa njàngale moom la andiwoon te moo leen mag ñi ko toppoon ci loolu lañ andiwoon waaye ba tey bokk na ci sàtt yooyu muy sëriñ bi li mu def de dañuy bokk na ci sàtt yooyu sëriñ bi nga bàyyi ko mu lay tànnal nga bàyyi sëriñ bi mu lay tànnal nga xam ne yow ci la ngay jëf ak la ngay def lépp bàyyi la sëriñ bi di la ko tànnal loolu dafa bokk ci sàtt yi nga xam ne si ne Sëriñ Tuubaa na ko ci yoonu murid waaye bokk na ca be bi nga xam ne moo ci mujj mooy ngay di ngat sa ndigalu sëriñ loolu bu ñu ko waxee mooy am na ñoo xam ne bu sëriñ bi digalee wax bu sëriñ bi waxee dara ñu am nu ñu koy déggee daana sëriñ bi daa waroon a def nangam sëriñ bi de bu waxee woon nii wala sëriñ bi bu defee woon nii wala sëriñ bi dafa mel ne bu waxtaanoo gars yi danañ ko mën a wax leneen leneen loolu dañ koy bañ sëriñ Tuubaa dafa wax ne sa ndigalu sëriñ bu ko dingat sa ndigalu sëriñ bu ko dingat da ngay bàyyi la xam ne loolu la digal tamit benn bi bi des tamit mooy nga lim la tànnaloo nga xam ne mooy tànn suñu borom mu tànnaloo loolu te nga bañ a am leen loo ci seet kon loolu bokk na ci euh, euh, sart yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa doon muy ñu war koo doxal ci yoonu murid waaye buñ dellu si waatee ci nga xam ne Seexul Xadim radiyallahu anhu bi muy jàngalee xidma nga xam ne moom ci boppam lim doon defal yonente bi sallallahu alayhi wasallam yépp bi mu demee ba war a dem ci géej gi dafa leeral ne li tax sama tukki bii ma génn génn naa bisu gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar waaye li ko war a mooy lan li xidmatil muxtaari fi sahri safar génn naa bisu gaaw ngir dem ci tukki bi ngir lan liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom xidma gi mu doon def lépp mooy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni sahaaba yi doon def doon ànd ak yonente sallallahu alayhi wa sallam di xare ngir lan mission bi ko suñu borom jox mu war a taxawal diine ñu ànd ak ci moom loolu di ko xeex ba diine taxaw loolee Serigne Touba bi mu dikkee fekk na loola jeex fi moom lan la def lan la lan lan la soppi ab liggéey yonent bi sallallahu mooy lan di tagg yonent bi sallallahu tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne at mi yëpp juróom benn weer yi da ciy tagg yonent bi sallallahu weer yi mu ko ci way kon moom ci noonu ci la doon doxee waaye bu ñu delluwaatee ci biir xidma danañ fekk Cheikhul Khadim mag ñi ko toppoon ci loolu la leen yoroon muy fexe ba jamono bu ne kenn ku ne li war ci yow li mu seet na moo aju ci yow muy mu lay mu lay digal lool nga xam ne ku mel ne Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne noo tudd xidma te tuddoo ko ngir la dem na ba moom Cheikh Ibrahima nit la koo xam ne képp kuy roy taalibe wala kuy roy yoonu murit wala kuy xenc dara ci ci yoonu Serigne Touba si moom ngay teg bët moom wax na ne bi mu ñëwee ci Serigne bi Serigne Bassirou nett na ci minu baal xadim ne bi mu ñëwee ci Serigne Touba daf koo xamal ne ko li may topp ba agsi fii bu ma leeree ne topp naa ko ba mu agsi fii te gisuma ko ñu ne ma bàmmeelam a ngi nii danaa fa nekk ak sama pas ak sama yéene ba li ma bëgg li ma yi nësër naa ko am ci suñu borom subhanahu wa taala bi mu waxee loolu Sëriñ Tuubaa ne ko man dey pëstéef bi ma am ci loolu mooy maa la gën a kawe himma di ma la gën a kawe himma mooy su ma leeroon yonent may liggéeyal ñëw na ay jamono ba jóge fi waaye mu leer ma amul ma lenn lu ma ko gis loo xam ne mën naa ko cee tagg waaye yëg naa ne asamaan si daana ko tiim weer wii daana ko tiim biddi wi daana tiim dinaa am pas-pasu yéene liggéeyal ko ba am ngërëm kon loolu tegtal dañu ne kon xidma kon lu fi yàgg la waaye mu sanc ay daara lu mel ne Touba Daaru Salaam Daaru Alimul Xabir mboolem dëkk yi mu sancoon yëpp daan def xidma ngir lan ngir lan nit ñi képp koo xam ne si ne amoon nga jafe-jafe nga borom xam-xam nga waaye mën ngaa diis borom xam-xam nga mun ngaa am loo xam ne moo desoon ci yow Serigne Touba ñenn ñi xam ne dañoo fuqale woon da leen lim lim lim leen daan yare mooy fexe ba di leen woorloo ñenn ñi xam ne dañoo amoon rëy mu leen doon mu leen doon yan kon moom noonu la daan liggéey ñoom ci xidma waaye daan liggéey ak ñoom tamit ci mbooleem ñi nga xam ne si ne euh, nit day defar ab bokk na ci xidma googu tamit nga xam ne Serigne Touba ni mu ko jàngale mbooleem mag ñi ko toppoon xamoon nañ lan mooy xidma ñoom xamoon ne lañ mooy xidma ci liggéeyal Serigne Touba bu ñu delloo ci mag ñi ko toppoon Cheikh saa Dieng yàlla yàlla yokk leeram daana wax ne ay jamono mi mujj ndax Serigne Touba moo ko njëkk wuyu ji borom ay jamono mujj daana wax ne saa sànq bu saa sànq bu baax ba day dël si waatoon jamono dina dinaa ko liggéeyal liggéeyal ba sama yax yi ak sama yaram wi maaselo ak fi mu tolloon ci at yooyu ba mu koy wax kon kooku am na. foo xam ne fa la tegoon ci liggéeyal xidma liggéeyal Serigne Touba radiyallahu anhu waaye boo delluwaat tey ci xidma ba tey nga xam ne addiye mënu ci génn Serigne euh, sëñ Massamba Diop Samb nga xam ne bokk na ci mag ñi njëkkoon topp Serigne Touba wax na ne lim daan joxe ci ay hadiya xel doowu ko daj xel doowu ko daj jaaxaloon na am xel ba am na bis boo xam ne Cheikh Ibrahima Diop almasxari bind na ci yoom ay way ngir lan yéeme gi nga xam ne si ne Cheikh euh, Massamba Diop Samb yéeme woon na ci joxe àddiya mu daan ne ko si Ibrahima Diop al-Mahsari ne ko wa minhu rusulun tara tatra li li saydil mbakki fi kulli waxtin waqat wa waqat nasara daan ne ko yow Cheikh euh, Massamba Diop Samb yow de nit nga koo xam ne jamono bu ne say hadiya mi ngay ma ngay jóoru kër Serigne Touba mi nga xam ne ci wépp waxtu woo xam ne waxtu wu ne saa bu ñu demee danañ fekk say hadiya di fa nekk kon ñoom foofu lañ tegoon ci liggéeyal Serigne Touba Serigne Darou Assad bi nga xam ne mooy sunu buntu Serigne Touba ku ne xam na ne bi ko Serigne Touba sancloo dëkk yi ko sanc ba sancloo ba sancloo ko Touba Ndiaye daf koo xamal ne ko Touba njaay boobu nga nekk day moo ko Touba ji ñoo yem ci maam benn benn benn kër la benn dëkk wax na ne Serigne Darou daa wutaloon benn xàll woo xam ne diggantee Touba Ndiaye ak Touba wenn xàll la woo xam ne ñuy joxe addiya gëléem yi mu yoroon ak fas yi mu foofu lañ daan jaar di dem Ndiarème di jox di jox Serigne Touba addiya nga xam ne wax na ne jamono bu ne ñiy yóbbu àdduna yi bu ñuy wàññeeku danañ taseeg ñeneen ñoo xam ne dañuy yóbbuwaat ma bu ñuy wàññeeku ñeneen ñi ngi demaat kon ñoom xidma foofu lañ ci tolloo nga xam ne mus ñoo denc dara dara dara loo xam ne dañ daan na jël ëllëg lépp lu mas a lépp lu mas a yor seen doole seen lépp liggéey nañ ko ngir lan jox ko Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mus ñoo denc dara te loolu la leen Serigne Touba waxoon na leen na ngeen roy seen na ngeen roy saxaaba yi ndax ñooy seen bàyyi ci diine loolu nag mag ñi amoon nañ ci dégg boobu ba nga xam ne si ne saxaaba yi am na bis boo xam ne yonente bi daf leen a woo saxaaba yi gënoon a mag daal di woo Umar Ousmane Aliou Ababacar kenn ku ne mu leen a demal andi la yor keroog Sidna Aliou ba mu demee am lu mu andi am lu fa bàyyi Sidna Ousmane ba mu demee am lu am lu fa bàyyi Sidna Omar noonu waaye ba ma si Sidna Babacar mu laaj ko ne ko ana yow Babacar loo andi mu ne ko man day lépp la andi bàyyi ma fa dara lu dul yàlla ak yonente kon ñoom foofu lañ tolloon kon Cheikh Ibrahima Fall. soo saatee nga xam ne mënoo tudd ak taalibe mënoo tudd xidma te tuddoo ko lu mer noonu la ci la daan dox nga xam ne seen lépp lu mu mas liggéey jox na ko Cheikhul Khadim radiyallahu anhu amul lenn lu mas a denc ndax da koo wax ne ko ñëw naa tey day nekk sab taalibe waaye da nga xam ne dara ci poñitum àdduna yitteelu ma dara ci bànneexu àdduna yitteelu ma bëgguma fi kër bëgguma fi soxna bëgguma fi dara ba loolu tey xidma googu tey lam doon def loolu moo am tey nga xam ne kenn mu tudd yoonu murit te tuddoo Cheikh waaye boo delloo ci mag ñooñu nga xam ne da ngay gis ku mel ne sëñ Mandoumbe nga xam ne diir bi sëriñ Touba nekk ci géej gi mbooleem lu njabootuk Serigne Touba daan dunde sëñ ma sëñ Mandoumbe moom moo ko daan liggéey moo ko daan fàggu ci ay haddi yoo xam ne jamono bu ne da daan indil maam Thierno ngir njabootuk Cheikhul Khadim di mu bàyyi ñoom ñoo ciy dunde kon loolu yàgg na ci mag ñi nga xam ne si ne ñoo àndoon sëriñ Serigne Touba mus ñoo denc dara lépp lu ma mas am joxe nañ ko def na def nañ ko ci xidma di liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala waaye bokk na ci yooyu ba tey jumaa ji ku ne xam na ne ci xidma la taxawe loolu buñ ko mënee wax mooy Serigne tubaa bi fi waaj a bàyyi ko ci anam yi mujj waxoon na sëñ Fallou ak sëñ Modou Moustapha ci lii nga xam ne sëñ Sidi Muxtaar yeesalaat kon loolu di ma nga xam ne jumaa jumaayu tubaa ci xidma la taxawe leeral ci leeral yoo xam ne ginnaaw bi mu jébbaloo ci sëriñ bi nga xam ne noonu mu ñëwee woon nga xam ne nanguwul kenn di jox sëriñ bi benn loxo wala nga di ko salalu wala ngay taxaw ci kanamam di wax loolu déggin ba xay na nit ñi ñoo amuroon dégg dégg waaye moom bi mu ñëwee dafa pratiqué mooy dafa jëf ñu gis ndax alquran buñ fàttali ko waxoon nañu ne yaa ayyuhal lazina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi bu ngeen yëkkati seen kàddu yéen ñi dend ak yonente bi di ay saxaaba bu ngeen yëkkati seen kàddu muy gën a kawe kàddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu ñu delluwaat ci alquran danañ fekk suñu borom dafa wax ne yaa la allazina amanu laa tadxulul buyuta nabi ila an yusana lakum ila tahamin xayru nasirin annaam walakin isa daamtum fantasiru wala mustanasir li hadis loolu alquran daf ne waxoon ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla suñu borom te topp Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonente bi feeg woowu leen bu ngeen ñëw waaye bu leen bu ngeen ñëwee ngir ngir ngir mu woo leen ngeen war a xewlu bu leen paree na ngeen génn waaye bu sakkuruut ci yéen waxtaan bu ngeen ko bu ngeen ko bu ngeen fa nekk di wax na ngeen daal di def lam leen def loolu te ngeen génn dem loolu kon bu Serigne tubaa Cheikh Rafal ñëwee di leeral loolu ngir mag ñi daan mujj jëbbul ku ñëw am noo melakaan boo boo wane mu daal lay xamal ne du nii nag ndax ab Serigne mënut a wax ne nii laa nii nii ngeen may toppee kon Cheikh Rafal xamoon ne Serigne Touba nii lañ ko war a toppee mu daal di wane melakaanam woowu bañ xam luñ ko war a toppee waaye Serigne bi tamit xamal nañu ne. boo na nga ko nekk sa kanamu sëriñ di fo ak reetaan ndax nag leelu loolu daa bokkul ci ay teggin kon day day bokk ak li ñu doon wax léegi nekk sa sëriñ di ko jox ndigal naan ko sëriñ bi dañoo war a def nangam dëgg la musaawara mun a ñàkk waaye musaawara boobu muy muy diisoo bi na nga bàyyi ba mu sàkk ko ci yow nga doog ko def waaye bu sëñ bi joxee ndigal nga nga nga ne lii wuruñu ko war a def wala sëriñ bi da ko war a defee noonu loolu sëriñ Tuubaa dañu koo tere daf ne na nga na nga bàyyi reetaan am na ñoo xam ne saa bu ñu taxee toogee ci kanam sëñ bi dañuy dañuy dañuy reetaan ba xaaxataay mujj di mujj di ko def morom loolu day dem ba daanaka doo dootoo yëgati sa bopp ne yow am nga kilifa boo xam ne si ne moo dox sa diggante ak Serigne Touba mu daa lay terewaat ne la boo nekkee ci kanamam sa kanamu sëriñ wala nga yëg ne mi ngi ñëw wala nga yëg ne toog na ci jotaay bi nee na bul nekk di yëngut bala ngay raf nee na na na nga maanaam bul nekk sax di gestu la wax wala takkun la day saltifaati bul nekk di gestu fu ne nga jëm wala wala wala nga yëngatu nee na yooyu na ko na nga ko bàyyi nga ne ko ndax ci laa yem mu ne la boo tege sa kanamu sëriñ sa sa làmmiñ na nga ko téye bul wax mukk tànk sa sànq maanaam sàkku ko ci yow bu dee dafa jox kàddu kenn ne ko waxal ma na nga xam ne kàddu googu kàddu sëriñ bi mooy wax kon ay teggin mooy nga diglu loolee nga xam ne moom la ñuy wax moo tax moo ne wala wala tuksiru kalaama xindahu bal kun samuutan li taxu soo rus doxul nee soo ko defee day Eh, eh, maanaam noppi sa kanamu sëriñ ba mu jox la ndigal nga wax nee na dey na nga xam ne noppi googee dana la jariñ dana la jariñ àdduna jariñ alaxira waaye dana la yóbbe ak njub waaye nag mu ñëwaat ci li nga xam ne moom la ñu def tey dajale suñu addiye ngir jëppal ko sëriñ bi daan nag bul dañ benn yoon di jël sa addiya di addiyaal sab sëriñ te kem la nga attan nee na loolee lu am solo la jamono bu ne saa boo nuyoo sab sëriñ na nga fexe ba bañ koo nuyoo waale loxoy kese ndax nee na loolu soo ko defee na la leer na day ah, ak mbooleem li nga xam ne wax na ko ne noonu la war a mel si kanam sëriñam nee na sa mbir moomee sa nee na na leer na sa mbir rafet na sa mbir mat na ndax dafa wax ne wajtahidan baada fi isaani yi fayn xostanal fi la fi akmaali yi nee na bépp jëf bépp jëf ma nga ca mat ga nag dañ ci profité waale wax wax ñi nga xam ne dañoo lekk ci loxoy sëriñ bi nga xam ne xëy na dañoo nekk ci tarbiya nekk ci loxol sëriñ bi nga xam ne yéweegu leen loolu dafa nekk lu am solo ndax bu la sëriñ bi bu la sa waajur jëlee jëbbal la sëriñ bi mu di la tarbiya te pareegul ci yow sëriñ Tuubaa def ne na nga fexe ba nga xam ne mbir mi nga doon sàkku ñaar fukki at nga dem ba ca cat la nga ko fa nee na la leen la mbir moomee matut rafetut matut rafetut sëñ Mourou Moustapha daan wax ne sëñ Mourou Moustapha wax ne maanaam mbir mu ne rafet def ju ne ma nga ca mat ga daan ne ñëw mu tàmbali ki eggale laa ñee kon loolu day tegtale ne mbir mi soo ko jëlee ngir ne da ngaa ñëw liggéeyal sab sëriñ na nga fexe ba mu rafet nanga fexe ba mu mat li koy matal di ko rafetal sëriñ Tuubaa jàngal la ko nee na lan mbooleem luy ndigalu sëriñ bi na nga ci nekk lépp lu ay tereem nanga ko bàyyi boo toogee moom bul di geestu bul di wax bu la wax loolu bul di wax saa bu joxee ndigal bu nekk di ko am leen loo ci wax kon loolu mu daan ne nag loolu soo ko defee sëriñ bi dana bëgg dana mujj mu bëgg la lool mbëggeel gu tar goo xam ne nee na mbëggeel gi la lay jariñ jariñ loo xam ne yàlla suñu borom dala ci bëgg nga am ba dootoo soxlaal kenn dara lépp loo amati loo dugg day moo tax mu ne fa nasratul xubbi min ash-shaykh ila muridihi hiya al-masaaya wal xulaa nee na xool bi nga xam ne taalibe bi sëriñ bi da koy xool bëtub cofeel boobu nee na loolu day ay may ak i yokk la la koy yokk sëriñ Tuubaa daal wax ne na ngeen maytu di di puukari maanaam bëgg gi ma leen di bëgg daan bëgg gi ma leen bëgg na ngeen xam ne du leen jariñ waaye bëgg gi ma bëgg gi ngeen may bëgg moo leen di jariñ te loolu soo delluwaatee ca bayit ba waxoon ne tuubaa li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaat kon yooyu mooy tax loola mat ndax bu ne laa bi bi kon nga di ko liggéey nga koy liggéeyal ginnaaw nekkee murid saadix ba pare ginnaaw ba nga nekkee ab julit ba pare ndax abdula wax muridin saadixin lahumu waaye nag bi xidmatin doo ko ñëw aw bi xubbin kon kon xamale ne kon bëgg sab sëriñ moo lay jariñ waaye du bëgg gi la sëriñ bi bëgg fexe ba sëriñ bi di la bëgg fexe ba li muy li muy joxe ndigal nga di ko nga di ko def lépp ak bëggam bëggam nga dàpp ko lay dafa am solo lool waaye na na leer na nag bëgg gi nga koy bëgg cofeel gi ngay am ci moom ba loo am yéene ko ko na xam ne loolu moo lay jariñ waaye mu daan lay xamalaat ne sax li gën a wér ba wér mooy boo nekkee sa kanamu sëriñ na nga mel ne ki nga xam ne dañ koo tëral ci margo bi ko sang nga xam ne moom du wax ne tëral leen ma côté bii wala jëme leen ma fii wala euh, ni ngeen ma tëralee day métti ki tëdd moom nga xam ne dañ koy waajal pour ñëbbu ko ca barab ya amul lenn lu muy wax fépp fu mu jëm dañ ko faa jëmale Serigne Touba dem ba lay misaal ne boo nekkee sa kanamu Serigne nee na noonu nga war a mel da war a mel ni néew bi nga xam ne si moom lañ tëral di ko sang nga ne ko ndax loolu dara ndax loolu rek doy na mun a déedéet ba tey loolu doyut nga ne ko loo cay teg mu ne la wakun la daa sayxaka bi tablugal bihi darajatal muluki nee na boo nekkee sa kanamu sëriñ nee na nag boo nekkee sa sëriñ na nga mel ne ku ñu moom ku ñu moom nag mooy ki nga xam ne dañ koo tërbiya tàggat ko ba mu nooy nepp nga xam ne moom fu mu jëm fu ne dañ ko faa jëmee nee na loolu soo ko defee de ba sëriñ bi gërëm la ci nee na da am darajay nguur maanaam darajay buur da nga ko am mooy lan loo bëggati da lay yomb foo jublu suñu borom da koy ubbi te nag mën ngaa am yaakaar njot lu rafet rafet ne li Serigne Touba doon wax ci ku liggéeyal sa Serigne wala nga liggéeyal ma dana am njariñ lu rëy lu la lu la lu la lu la lu la dab loole dañuy dellu ca bay di Serigne Touba doon wax ne waqdil awaïd allazina daamu fi xidmati wa hablahu maaraamu yow suñu borom na nga faj aajoy képp koo xam ne euh, mu ngi may liggéeyal te lépp loo xam ne mi ngi koy sàkk ci àdduna ak alaaxira suñu borom na nga ko defal waaye waxaat ci beneen bayit ne inna lazina saaraho nga xam ne dafa waxoon inna lazina saaraho fi xidmati bayit wala mu ca mujjantal bayru da caa teg daan ne na dem ba suñu borom nga tàbbal ko àjjana wasatal janat mu sax àjjana sax koo xam ne duutu fa jóge mukk kooku loolu dem na ci kon xam ne liggéeyal Serigne Touba wala liggéeyal sab Serigne rek moo am moo moo moo am solo mu daal di wax ne na xam ne sax maanaam sab Serigne kem na nga ko màggale képp ku la raw képp ku la raw na la leer ne xoolal sa diggante sab Serigne la la rawee wala sa Serigne bi ngeen bokk ci la la rawee wala say waajur ci la la rawee ndax Serigne Touba dañoo teg daan bi qadri ijlaalika cheyquka tafus bi ma turidu wa bihi yamunu taxus daan ne na nga xam ne ci kem ni nga màggale sab sëriñ rek ci kem ni nga màggale sab sëriñ nee na ci loolu ci la say mbir di yokk ko ci sa ci la say daraja di yokkee daan ne sëriñu cheikhu bi nag moom mooy sëriñ bi nga xam ne day yar ruugi waaye sëriñ bi nga xam ne moo yar jëmm ji moom bu ñu ko mënee wax xëy na mooy ki lay jox lekk wala mu lay yor sa wàllu col muy sa waajur waaye sëriñ bi nga xam ne si ne moo yor sa ruux kooku mooy sëriñu si seexu murabbi bi nga xam moom nga ñëw jox ko sa bopp mu lay digal di la tere euh, lépp loo xam ne gënul ci yow mu xam ko di la ko bàyyiloo lépp loo xam ne moo gën ci yow mu dul ko digal pour nga def ko kon loolu mbir la yoo xam ne nit ku ne war na koy bàyyi xel bu baax a baax ñu ne ko ndax ci ngay yem mu ne déedéet fakkun bay na yade yi kal mayti bay na yade yi xaasili yi aw ahma fi tarix nee na boo nekkee ci kanamu sa sëriñ na nga mel ne bu faatu koo xam ne dafa faatu nee na ci kanamu sa ci na mel ne néew bi xam ne dafa dafa maanaam ki xam ne dafa faatu mooy li ñu tudde néew ci kanamu ki koy sang wala mu nekk gumba gi nga xam ne dafa nekk ci yoon ànd ak ki nga xam ne moo koy womal nee na boo nekkee sa sëriñ na nga mel noonu bul jëm a xam dara bul loo xam ne laaju la ko bul jéem a man dara loo xam ne sant ko kon yooyu ay mbir la woon yoo xam ne xëy na Euh, daayira bi sàppoon na bu ñu agsee ñu jël tomb yooyu fàttaliwaat ko nit ñi waaye tamit ci kàddu jëwriñ ji nga xam ne moo jiite daayira bi mu sàkkuwaat ci mboolem bi baax a baax ndigalu sëriñ bi ndigalu sëriñ bi wu weesu dara mboolem li ñu doon wax ci xidma dara weesuwu ci ku ne xam ne loolu lépp lu ci bari ameetul ndax dem te tool ya lu ci bari ameetul lu bëree bëri gisatuñ ko ñu koy def léegi lan moo des mooy lan loolee li ko wut toolu àllarba yooyu lan moo ko wutu lu di wuy ci daayira bi nga xam ne si ne mooy dajalewaat mbooloo mi ndax mbooloo mi dajale gi dajale jël addi yi am na solo lool baax na lool waaye fexe ba sëriñ bi di leen benn fexe ba sëriñ bi sëriñ bi li mu bëgg mooy fexe ba benn noo nekk benn jamono bu ne ñuy demlante di dikkalante di gisante kenn ku ne xam ne kii sa mbokkum taalibe la loolu moo ko gën a ñor ndax sëñ Mourou Moustapha dafa waxoon ne sëriñ Touba lim ma jox ma war leen koo jox daf maa waxoon ne ma feeg bennoo wul bu leen ko jox moo tax mu wax ne sëñ mu saa waxoon ne jamono bu ne ci lu leen benn bennale ci laay nekk ba ngeen ni benn ba ngeen ba ngeen doon benn li ma Serigne Touba wax ma jox leen ko ma doog leen koo jox te loolu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma mi nga xam ne moo xalaat daayira ci xelam mu rafet da koo tënk ci ñaari aaya yi benn mooy waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na ngeen jàpp ci buumu yàlla gi te bañ a tàqali ko kon loolu leeral nañu ne kon tasaaroo amul njariñ li benn borom xam-xam waxoon ak njabootam laataa ma fi bàyyi ko mu ne leen na ngeen boole seen bopp ba mel ne xayu sayu xat bu ñu takk ñetti buum ndax su leen ko defee day ponkal mi gën a mag su ñëwoon lu mu jéem ci yéen du man ci yéen dara waaye bu yéen tàqali koo gone gu ndaw mën naa ñëw damat leen benn par te loolu alquran waxoon nañu ko de wala tanaasaxu fa tafsalu wa tasxaba riihukum nee na bu ngeen tàqali koo seen doole day day day day néew seen seen seen seen kàttan day néew ñu ne war nañ see bàyyi xel dañ xam ne loolu mooy bëggu sëriñ bi jamono bu ne ku teew ci kanamam xam nga ne li mu bëgg mooy mbooloo mi di wuyu ci daayira bi comme na mu waree